mu ne man ndaw la ma ne ko waaw man je préfère nekk ndawi politique que nekk caay-caay fitna boo xam ne fitna koo xam ne politicien bu mag la man je préfère nekk ndawi politique boo xam ne day defar goxom day defar réewam day nekk ci weti askan yi ndaw boobu man maa je préfère nekk ndaw boobu ndaw yi Ziguinchor laa man man ndaw yi Ziguinchor laa dama tuuti mais dama si Ziguinchor laa nekk je préfère nekk ndaw yi Ziguinchor que nekk ah, ah koo xam ne mag la te lu mu lu mu lu lu luy nekk si bopp bi yëfi caay-caay la yëfi yëf ay ay ay kàcc ay fitna d'accord naa si loolu mais ndaw boobu moom ndaw boobu bu muy wax ndaw yi Ziguinchor boobu la ndaw ndawi Ziguinchor boobu ndawi Ziguinchor boobu moo bind diriger programme président de la république Macky Sall ndawi Ziguinchor boobu ingénieur Pont et Chaussée la une des plus grandes écoles en France ndaw boobu il est diplômé de DEA de de euh, de finance ndaw boobu il est diplômé de maîtrise de mathématiques ak mention si une si université yu gën a mag ndaw boobu bateau bii buy Aline Sitoé moo ko tabax ndaw boobu moo nekk coordonnateur pôle des grands projets du chef de l'État 2012 projet yu mag yoo fi gis yëpp pont de Marsassoum pont de pont de Foundiougne pont de ceci cela pont de gambi ndaw boobu moo ko moo ko concevoir ndaw boobu moo nekk fii directeur général de son état depuis juróom-ñeenti at ndaw yi Ziguinchor boobu moo fa nekk Ziguinchor loolu la soxla Ziguinchor soxlawul benn politicien bu mag bu ñuy indil fitna Ziguinchor loolu la soxla jàmm la soxla parce que ñun xam nañu ni lu dul jàmm lu dul jàmm mënul ñu yóbbul suñu gox bi kanam loolu moo tax ñun ñu ne lu ñuy présenter Ziguinchor ci élection yu ñëw nga xam ne candidat lañ ci suñu suñu programme bi dañ ko tuddee construire la ville sénégalaise du futur suñ koy wax ci olof mooy tabax goxi ëllëg Sénégal xar kanami goxi ëllëg Sénégal nu muy mel ñu tabax ko xar kanam Ziguinchor lañu ñu lañu a la a changer pour won waa Sénégal que Ziguinchor mooy yor xar kanami gox bu gox yi ni ñu war a niiroo ci Sénégal ëllëg ñu def ko ci juróomi pàcc yoo xam ne. comme xam naa ni ah xam nañu ni man maa bind programme du président bi la République xam nañu ni sama vision su ma ko génnee léegi léegi nga gis ñu commencé si jël di ko ñëw wone moo tax ma ne su jotee dinañ ko won waa dañ ko wax waa Ziguinchor ñun xaaruñu di préparer de dañu pare nekk si liggéey bi ba pare ma ne ko mu ñëw commencé mu ñëw wàcc sur le terrain mu ñëw liggéeyal Ziguinchor ñun loolu la ñu tal taluñu leneen parce que mënuñu. yàlla may ñu xam-xam boobu yàlla may ñu jaar-jaar boobu ñu nekk ay ndaw ba pare duñ ci bénéficier loo suñu suñu région dañuy joxe suñu lépp jox ko suñu région pour que ñu mën a gis suñu bopp ëllëg si Sénégal loolu moo doon kon tey suñu kàddu di ko wax ni duñu nangu fitna yu mu fi mën a indi mer bu mu munti mer wax na ni que man man ak moom ñu dara loolu la wax na mu ne man damay wax ni moom cousin cousin am la man moom sama cousin la te man ak moom bokkuñu dara ma koy wax ni mais xanaa ñun loolu lañ doon théoriser Grand Sénégal pourquoi ñu ne coalition pour le Grand Sénégal parce que dañu bëgg jikko yi ak suñu suñu valeurs yi xam nga ñu koy waxee si olof comme man jool olof yi Casamance xam nga dañoo xam ñun mooy olof yi valeur Sénégal dañu am ay ndaw yoo xam ne ñun ñoo bokk pratiquement ay valeur valeur yooyu lañu war a sukkandiku pour tabax suñu réew ëllëg nu muy mel valeur yooyu benn bu si bokk mooy que ñun yépp Sénégal ay mbokk lañu ñun yépp Sénégal ay mbokk lañu rawatina ñun fii waa Casamance nga xam ne ñëpp xam nañu ni Casamance dañ leen di euh, jooyee ce que ñoom ils rawatina moom mën ak moom ñu bokk Ziguinchor rawatina man ak moom ñu bokk Bessir nu ñu bokkee Bessir mooy ñëpp xam nañu ni man sama ay demi ñoo xam ne mën ak ñoom ñoo bokk yaay ñoom gujaa bi la sant te ñoom ërëm ak ñoom abo siyew ñooñu seen maam ñoom ak Ousmane sonk ñoo bokk maam xanaa kay ñoom Ousmane sonk ay cousin lañu xanaa man sama rakk soo nekkee cousin sama rakk sama cousin nga ba pare cousin comme nu may wooye moom moom du ma musuma wooye de su may yoon cousin la may wooye mais cousin cousin cousin xam naa ni mer nga mais vraiment man duma la ko jàppee duma la ko duma la topp Euh, parce que euh, tooñ baaxul te lu amoon dëmb noo ko regretté noonu laa ko regretté mais tooñ baaxul homme d'état day xam nu muy doxale homme d'état dafay xam nu muy doxale te su demee sa ba loolu sax xanaa koy moom wa war na xam luy Casamance cosaanu Casamance mooy lan war na xam luy bukkut wala moom dafa ñëw bukkut nii rek dugg rek génn koo bokkul bugut xam xam nga waa bugut du ñu wax mais lu ma lu ma mën a wax daal mooy man su ma su bokkuloon sax ak sama ay rak nga xam ne cause loolu mën nga ko mën mën mën mënoon a bañ a le fait que man ak yow ñoo bokk bugut man ak yow ay frère lañu. c'est c'est pire que c'est pire que même c'est plus proche que même cause donc mais loolu toppeewuma ko parce que dafa ndaw la. mu mer mënul contenir merom mais loolu homme d'état dañ koy construire peut-être que man maa ngi ko magee juróom benn weer rek mais sama rakk la ba léegi mais man maa ko ëpp expérience ci état bi. xam nañu sama fierté d'être Casamance ma ne fii nii Ziguinchor man damay fëgg sama dënn ma ne man dama seey ci Ziguinchor parce que sama sama ñeent maam. ñaaru maam si sama yaay ak ñaaru ñaaru maam si sama si sama si sama baay muy seen yaay ak seen baay ñoom yëpp cimetière Belfort fii laay dugg pour dem ziar leen ñaanal leen. du ma dem si beneen cimetière Sénégal su ma bëggee ñaanal sama ñeenti maam yi benn cimetière laay dugg fii ñoom yëpp dëkk fii Bukot juddoo fii màggee fii sëy fii am fi ay doom sama maamati maam yi ñu suuleen fii donc man dama dama sëy si Ziguinchor dem ko fier mais Ziguinchor xamul tooñ. man Ousmane Sonko HLM nee ma sama ay mbokk rek ñoo fa nekk dem fay mun naa dem si weti koor këram sax am naa fa ay mbokk mais depuis mu commencé politique su ma xamee ni Ousmane Sonko mi ngi Ziguinchor du duma jaar foofu pour rek bañ a tooñ bañ am fin Benoît Sambou du ma dem si këram Balde duma dem si këram parce que kenn xamul yow loo mën a dëkku en tant que homme d'état sa ndaw yi mënuñu ko mënuñu ko dëkku donc loolu xanaa kay soo koy def sa nga nga woote sa ne comme nu may wooye couche maa ngi jaar sa koñ mais woowu ma xamul xaw ma lu mu fi lu mu lu lu mu fiy wuti ah mu ñëw man fekkee fekkewu ma mais lu ko fi daal nag ah dañ koy regretter mais su su doxaloon nu mu doon doxal nu mu waroon doxal en tant que homme d'État lu muy wax mais mais su doxalee en tant que un violent acteur politique majeur comme il est un violent acteur politique majeur su ki doxalee noonu nii lii lii nii malheureusement rek lay am fu mu ko doxal lii nii mën na nekk des risques. cuune la. donc moo tax may sant yàlla di nuyu ñëpp di dalal ñëpp di massawu nag ñu ah victime yu am di massawu seen waaye famille parce que samay famille lañu samay famille lañu samay ñëpp lañu samay mbokk lañu samay deret lañu samay lépp di leen massawu muy si ñun ak si moom ñoo xam ne ñooy ànd ak moom di leen ne dara jaru ko fi in fine Ziguinchor ñun yëpp a ko bokk Sénégal ñun yëpp a ko bokk ay ndaw lañu rek ku nekk sa sa xadar nga am pour nga defar sa gox xadar rek la lañu am sa xadar ak nga ngay nga am sa yéene boo xamante ne yow nañ la loolu rek la du dara loolu la ñu war a tënk ñu jàpp ko ah, mu nekk suñu suñu suñu suñu doxalin maa ngi leen di